إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أحمده وهو المحمود حقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام ها نحن نعيش اليوم في ها نحن نعيش في اليوم الأخير من العام الميلادي 2021 وغدا بإذن الله هو اليوم الأول من العام الميلادي الجديد 2022 جعله الله عام خير وبركة وسلام عام مضى كأنما يقول للشارد عد وللغافل تنبه وللمسرف كفاك تفريطا في جنب الله آن الأوان أن تتوب إلى الله عام مدى كأنما يقول لأحدنا لقد قطعت لقد قطعت مرحلة من مراحل سيرك إلى الآخرة فكن على حذر إخوة الإسلام إن أهم ما نودع به هذا العام ونستقبل به العام الجديد هو محاسبة النفس فنتصفح ما صدر منا من أفعال فإن كانت محمودة دينيا أمضيناها وأتبعناها بمثلها ودمنا عليها وإن كانت مذمومة دينيا استدركناها بالتوبة وانتهينا عن مثلها في المستقبل في خطبته يخصنا سيدنا إمام الله عليه السلام على محاسبة النفس بصفة دائمة فيقول أزوركم في جوارحكم كلها وفي أفعالكم فأحسنوها ولا تقبحوها ويقول أيضا ثم أوصيكم يا أصحابي وصح وصحابياتي بأن تقصروا وتغتسلوا وتنزفوا في الدنيا وذلك خير لكم بأن, بأن تقصروا في الآخرة ينتنيالني يالكي بروم بندي في تي بروم لب مونغي وقتي تيرم بوتد بني نك أبب يالا بيغا خمني مملا أبب الكونك أكلونك سيكسي دردو كرندل دردو كرندل ndeem xamoon ngeen maa ngi koy sant te moom muy ko sant ki dëgg-dëgg gunuware jamu ne amul benn buur bu nu war jaamu dëgg ku dul yàlla wéete na bu ko kenn di seede sunu sang muhammad ab jaamam la dib yonentam sunu borom nu lay ñaan nga dolli teraanga ak i xéewal dolli mucc barke ci sab jaam di sab yonente muhammad ak nyonya ñoñam ak i saxaaba mboole seen ngi leen di dénk yéen jaam yàlla yi maa ngi koy sama bopp ragal yàlla mu màgg mi te di leen ñaax ci topp ka ginnaaw loolu yéen way gëm yu tëdd yi nu ngi nii de di dund ci bés bi mujj ci bési atum 2021 ëllëg ak jàmm bi isnillahi mooy doon bés bi jëkk ci at mu bees mi nga xam ne mooy atum 2022 yàlla nañ ko fekkeek jàmm te yàlla defal nu ko mu doon atum yiw atum barke atum jàmm yàlla defal nu defal nu ko mu gën fuuf at mii nu jeexal nii ci anam yépp mbokki jullit yi bu ñu waxee ne at mi jeex na nag loolu dafa war a mel ni alarme alarme bu am doole boo xam ne bu jibee rek kenn ku nekk fa nga nekk ak fa nga toll ak ca la nga nekk dina la dina attirer sa attention nga xam ne ku mu fekkoon sam xel nekk ci leneen lu dul lam war a nekk day mel ni at mu jeex moomu dala yéene la wëlbatikul nga def sam xel ci li nga ko war a def ci la lay jariñ gaaw kum fekkoon tim ci càggante day mel ni moom itim day attirer sa attention ne la nag farlul jublu ci li nga xam ne mooy la nga war a jublu te mooy li gën ci yow kum fekkoon itim nga ëppal ci tooñ sa bopp ci sa digganteeg sa boroom day mel ni alarme boobu dalay yée di la wax ne la doy na sëkk nag li nga xam ne sàggan nga ko ci sa digganteeg sa boroom jot na nag nga tuub dellu ci yàlla mbokki jullit yi am at bu jeexee alarme bu rëy la alarme bu dégtu la bu foor bu am doole boo xam ne kenn ku nekk ci ñun dafa mel ni mu ngi wax ak yow di la wax ne bàyyil xel ne jéego waat nga jéego bu rëy ci dox bi ngay dox jëm àllaaxira ngal la moytul yéen mbokki bi bokk na ci li ëpp solo ci li nga ne moom la ñu at mii jeex ko at mu bees mii ñëw nu atel sunu bopp sunu rek lel sunu bopp sunuy jëf delluwaat page yi nga xam ne moo weesu ci fukki fukki weer ñaar yi jàll ñu xoolaat bu baax li nga xam ne moo tukkee ci ñun ci ay jëf bu fekkente bi ne ay jëf yu yu nu gërëm la ci suñu diine a ah, nu wëyal ko te toftale ca jëf yu mel noona ca sax ca bu fekkee jëf yu ñu ŋàññe la ci suñu diine nag te kenn ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp kenn ku nekk boo maandoo bu fekkee sa conscience deewul mën nga atteel sa bopp sa bopp bu nu xoolee gis ne li nga xam ne moom lañ doon def ci li weesu jëf la yoo xam ne sunu diine gërëmu ko nu dabaatal ka ak tuub gu gaaw gundul waaj bàyyi ka te bàyyi lu mel noona ci avenir bi ci xutbam nag sunu sang imaamul daahi alayhi salaam mu ngi nuy ñaax ci ñuy atteel suñu bopp suñu bopp di regleel suñu bopp suñuy jëf ci anam gu dëkk anam gu sax mu wax ne maa ngi leen di nemmeeku ci seeni cër yépp ak seeni jëf rafetal leen ko te bu leen ko ñaawal mu wax itam ne yéen samay saaba yu góor ak yéen samay saaba yu jigéen maa ngi leen di dénk ngeen fóot seen bopp sang seen bopp setal sen bop fi ci adina te ngeen xamne lolou de mo gën ci yéen ngeen dem ba al bàyyi ba dem ba al-akhirah ñu leen fay fóot barakallahu li wa lakum fi lqur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim innahu ta'ala barun jawadun furur rahim الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون قال ابن القيم رحمه الله المحاسبة أن يميز العبد بين ما له وما عليه فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود فإن من أهم ما يجب أن يتنبه إليه العبد في حال توجعه العام حقوق العباد التي في عهدته من دين أو وديعة أو إعارة أو أمانة أو أي حق من أي نوع من الحقوق فيجتهد في ردها إلى أصحابها أو التخلل منها فو أو التخلل منها فورا وأن مماطلة إرجاع الحق إلى صاحبه ظلم على ظلم حتى ولو كان يتحجج بأن الأمر في يد القانون كما يحصل كثيرا بين المستأجر مثلا والمؤجر إن حقوق العباد أمرها عظيم قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال يا رسول الله أيكرر علينا ما يكون بيننا مع خواص الذنوب قال نعم لا يكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه وقال سيدنا إمام الله عليه السلام بل كل شيء فيه حق وكل ذي حق يؤخذ له حقه cant ñeel cant gépp cant ñeel ni yàlla tabaraka wa taala sant naa ko cant gu bari gu sell gu nu barkeel seede amul benn buur bu nu war a jaamu kuddul moom yàlla wéete woon ngoro mbokk kenn seede muhammad ab jaamam la dib yonentam yal na ko doli dooli ak xéwal dooli ko mucc ak barke moo ki ñoñom ak i saxaabam mboole seen soppe julit yi euh, borom xam-xam bu ñu wax ibnu qiyam yan yàlla gërëm ko wax na dafa wax ne nit ki ni nga xam ne lay mooy mu xàmmee ràññee bu baax li nga xam ne mooy li mu moom ak li nga xam ne mooy li keneen moom ci kawam bu ko defee mu téye moom li mu moom li nga xam ne keneen a ko moom nag te mu tegu ci kawam mu delloo ko boroom te kenn ku ci nekk dafa war a xam ne mu ngi dëgmal ab tukki boo xam ne tukkib ku dul dellu si la te tukkib kuy dellu si sax léeg-léeg dina tax boroom ragal yàlla delloowaat ax ya ak yëf ya seeni borom kon nag ni ngay àttee sa bopp mooy nga xàmmee diggante li nga moom ak li keneen moom ci li nekk ci yow li nga moom nga téye ko li keneen moom nga delloo ko te bokk na ci ëpp solo ci li nga xamante bi nii jaam bi war na cee yeewu ci waxtu wi tàggatook am at te am at ma wax ne jeego bu rëy la ci dox bi nit ki di dox di dellu ca yàlla bokk na ci li ëpp solo li nga xam ne war na cee yeewu bàyyi ci xel mooy axi jaam yàlla yi yi nga xam ne mu ngi ciw loosam moo xam bor la moo xam dénkaane buñ ko dénkoon moo xam lu ñu ko abaloon la moo xam itim luñ ko wóolu woon ko ko moo xam benn ax bu mu doon ci xeeti àq yépp yoo xam ne mu ngi ciw loosam mu góor góorlu def li mu man lépp ci delloo ax yooyu seeni borom wala boog mu setal ci boppam ci digganteem ak seeni borom balaa wees te nag di yéex a delloo ax yi seeni boroom moo xam bor la wala comme yi ma lim léegi di def euh, euh, di def exprès yéex a delloo ax yooyu seeni borom ñu koy wax mu maata la loolu de ak tooñ ci kaw ak tooñ la maanaam ak tooñ la boo defoon nga continuer di ca dolli ak tooñ gu dëkk rek te genn ak tooñ rek dafa doyoon donte la sax ki nga xam ne moo yor àq jooju mu ngi taafant laa loolu dafa nekk ci loxob yoon ndax am na ñu bari dañuy taafant laayoo ñàkk seen ak ñàkk nekk ci dëgg naan affaire baa ngi ci loxob yoon nanu xaar lu yoon du àtte yoon mënula atte atte ba jox la loo moomul li nga xam ne moomuloo ko yaa gën a xam ne moomuloo ko même bu yoon attee ne yaa ko moom it yaa gën a xam ne moomuloo ko moo tax nit ki moo gën a mën a atteel boppam boppam ci bu fekkee conscience sam deewul te loolu bari na lu muy am surtout ci diggante ki ñu luyee kër ak ka luyee kër ga bari na koo xam ne dem na ba toog ab diir mënatu la jariñoo këram ndax ka fa nekk génnu fa te itam defatul la nga xam ne moo ko war lu dul di taafantlaayoo ak di mbubawoo yoon ak yeex ak yoon ak itam ñàkk farlu yoon ak yenn saay ñàkk ñàkk atte atte bu jaar yoon ma wax ne di ngir continuer tëdd ci alali jàmbur loolu génnewula ca mo xam ci diggante ku luye ak kaka wala ci diggante ku nu abal ak ka abal wala diggante borom bor wala ku ku tëdd ci suufus jàmbur wala kër jàmbur wala ndonol jàmbur wala ndonoloo bokkante xam nga ne moomoo ko di taafant laa yooyoon du la ca génn ba ca kanamu yàlla mbokki jullit yi li nga xam ne moom mooy axi jaam yàlla yi lu màgg lu rëy la lu ma a ragal lu mat a moytu la saxaabi bi ñuy wax abdullah ibn zubayri yàlla yàlla gërëm ko mu koy juróom moom nee na bi aaya bi wàccee muy ne yàlla dafa wax yonent bi nekk innaka mayitun wa innahum mayitun mu nekk yow da ngay faatu bés ñoom ñéppit dinañu faatu bés su ma summa innakum yawmal qiyaamati inda rabbikum taxtasimuun la cay topp nag mooy yéen ñëpp di ngeen daje ca kanamu yàlla te yéen ñëppit di ngeen taxawaat ci kanamu yàlla di layoo la doon dox ci seen diggante ci ay jote nee na moom Abdullah ibn Zubayr mu ne yonent bi waa kon ñun lii nuy séq nii yépp dañ koy répété waat ca kanamu yàlla te bokkul ak nag suñu bàkkaar bopp yoo xam ne kenn ku nekk ku si nekk sa bàkkaaru bopp ya nga def yonent bi nekk waaw waaw lii ngeen di séq yépp noonu ngeen koy répété waat ci kanamu yàlla lu ci waay waxoon di nga ko waxaat ci kanamu yàlla lu ci waay defoon di nga ko defaat ci kanamu yàlla li ngeen séqoon ci ay jotee noonu ngeen di taxawe ci kanamu yàlla di ko xuloo ca kanamu yàlla yàlla àtte leen ci maandoom nga nee na mu nee na nag mu mu nekk ba keroog nag ax ju nekk dellu sa borom waaw mu nekk lépp dinañ ko dinañ ko répété waat waxaat ba ax ju nekk lu mu néew néew lu mu réer réer lu mu yàgg yàgg dellu sa borom moom mu teg ca moom Abdullah ibn Zubayr na cëy kon day ax moom tiis na ax ax lu mat la te loolu itam sunu sang imaamullahi alayhi salaatu salaam mu ngi nu koy fàttali di ñu ci bàyyiloo xel ci xutbam bu sell bi mu wax ne bal kullu shay'in fi xam mu ne lépp lu mu doon na ngeen xam ne ax aju na ca Mune ne wa kullu zi xaqin mu ne képp kuy borom ax yuxasu lahu axu dinañ ko jëlal akham dello delloo ko ko bu ñu bu ñu delloo ca kanamu yàlla yàlla nu yàlla doolee xiis ci ko ak ko ak ragal ko defal nu ko atum jàmm ñu dugg ci ak dunde ko ak jàmm li nu jànkoonteel ci ay jafe-jafe ak i jàngoro ki metit ak i mettit ak i ñàkk yàlla na ko mu dem at mii dem at mii ñëw doon atum yiw atum barke atum jàmm yalna yàlla doli jam ci rew mi yalna yàlla doli jam juliti di fu nu mën a ne yal na yàlla wesaare jàmm ci adina bi yeb allahumma inna nasaluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wasalaamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli bir jannati wan najata minan nar اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره امين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الامام المهدي وعلى اله